dolli ko aar dolli ko tawfiq ba li mu yéenee liggéey lépp e, mu def ci lu kawe njortam yeggale ko fu kawe njort lépp it ñu ànd ko moom na mu gën a rafete suñu boroom di ñu defal dégg ak topp ci li ñuy dégg ci lu baax ñu koy déggee na mu gën a rafete te di ko topp di ci gën a rafet ni mu ko waxee ne وبشر بشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه xam nañ ne ñu ngi ci weeru màgg weeru tedd muy weeru rajab ñu koy wax ndey koor weeru màgg ci lislaam bokk ci ñeenti weer yi gën a tedd ci weeri at mi ñu ko waxe ci ajuma ji weesu mu am xew-xew mag bu ci xewoon ñu di ko fàttaliku saa yu weer wi dikkee di ko nafaraat di ca dolliku xam-xam waaye di cay jànge ay bind loolu mooy rañaan gis sunu boroom rañaane woon yonent bi sallallahu alayhi wa ak yéeg gi mu ko yégaloon ba mu yegg fu kawe lool fu kenn mësta fu mbindeef mësta mu jox ko fa lam ko fa jox muy xew-xew bu amoon ci guddik ñaar fukk juróom-ñaar ci weeru rajab ci atum ñetti at lu jiitu gàddaayug yonent bi sallallahu alayhi wa muy kon mooy mooy guddik kasu rajab xew ci la amee woon jullit yi di ko fàttaliku saa yu dikkee dina faraat xew-xew bi di ci dolli ay bind waxtaan wi ñu ngi koy tënk ci ñeenti tomb ci kemtulaayu li ci waxtu wi maye tomb bu njëkk mooy xew-xew boobu ci yan jamono la xewee maanaam ci yan tolluwaay tolluwaay lislaam ak tolluwaayu woote lislaam bi ak jafe-jafe yi yonent bi sallallahu alayhi doon jànkonteel ci jamono yooyee ba tax yàlla rajaane ko yéeg yéegal ko ñaar bi mooy jëmmi xew-xew bi ci boppam rek ni mu tëddee ni mu amee ci tënk ñetteel bi mooy bi mu amee ba noppi nu ko nit ñi dunde bi yëg nit ñi yëgee xew-xew bi ban jeexit la bàyyi ci ña ko doon ña ko fekke woon ñeenteel bi mooy bind yi nga xam ne mënees na ko cee lenn ci bind yi nga xam ne mënees ko cee jànge yonent bi sallallahu alayhi wa bi mu amee ñeent fukki at ca màkka la yàlla yabal ndaw ci moom muy seydina jibril alayhi salaam mu fekk ko ca xunti mam daan wéet di fa xalaat digganteem ak boroomam euh, ñu ko wax xuntim xira malaaka mi fekk seydina jibril fekk ko fa mel na ko yàlla binde melokaan wa ko yàlla bind mel melowoo eh, tiim daal di eh, dikk ci fee fees dal di jaww ji ak fam laafam yonente bi sallallahu gis ko muy ñëw di ko jege si di ko jege si ba agsi ci moom daal di koy téye xoj ko ne ko jàngal fekk moom mësta jàng mu ne ko man kat du ma mësuma jàng mu ne koy téye lu yàgg daal koy bàyyiwaat xojaat ko ne ko jàngal mu tontu ko lam ko tontuwaat mu defaat ko ko ba mu ñetti yoon ci ñetteeloon bi la ko wax iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqal insaana min alaq iqra wa rabbuka lakram alladi allama bil qalami allama al insaana ma lam yaalam daal di dem wàcc ko fa loola baat yooyu daal di na ci ci xolam mel ni dañ ko caa boyaade mënatu la mënatu mënatu ko fàtte waaye mu ànd ak tiitaange ju rëy rëy nag ndax kii mu gis ak lii mu ko indil te xamagul lu mu doon dëgg-dëgg la ca xew mooy booba la daal di jóge ca ca xunti ma ànd ak tiitaange di lox dellusi ci kër gi fekk fi soxnaam soxna Xadija eh, ne ko sàng ma sàng ma mu sàng ko ba tiitaangeem dal mu nettali ko la xew moom itam mu set ci ay xalaatam rek nu muy fexe ba xam ba xam lii ko dikkal lu mu doon Euh, ca def lam doon def ba xam jàpp ne lii malaaka la war doon waaye du jinne dellu it ci borom xam-xam bu mu jamonoon teeloon ku doonoon mbokk ci moom mu war a xatum nuufal nettali ko koko kooku nag moo ko wóoral ne ko sa borom kër bii li mu gis malaaka la euh, te mooy malaaka mi daal dikkal yonent yu njëkk ya yonent si yonent yàlla Muusa daan wàccee ci moom tawraat kon xamal ne sa borom kër bi ab yonent la te jafe-jafe yu bari mi ngi koy xaar ci kanamam dana mën naa dem sax bañ mën ko bañ mas koo génne dëkk bii mu dëkk noona nag lay def ba Seydina Jibril ñëwalaat ko beneen yoon mu tiitaat tiitaange ju mel jëm tiite woon waxaat ne nañ ko sàng bam dalee nag lañ ko xamal nag ne ko daal xamal ne rek yàlla la yónni ba bo nga dëgëral sa te jéem a woote jëme ci yàlla foofu nag la daal tàmbalee miin eh, dikku Seydina Jibril daal di gëm boppam gëm ni moom yàlla ko moo ko yónni li ñuy wàcc ci moom wax yàlla taw ko war a jotli ci la di jotli woote bi waaye di ko def nag ci nëbbu ku koy wax ku nekk day wéet yow ci pet wax la ko soo koy gëm gëm ko boo ko gëmut it nga suturaal ko bañ ko waxaat keneen xam ñu mu la ko daa wax am na ñetti at yoo xam ne woote bi da koy nëbbu ngir wax jooju dafa yàlla ma yónni te jooju jamono dégg ko nekkutoon yomb bi mu amee ñetti at nag ci la ko yàlla xamal ne ko ci la ko digal ne ko lii bu ko nëbbati wax ko ca kaw ndax yàlla moo la yónni loolu dëgg gu wér li muy wàccee alquran la te dang ko war a jottali ñëpp tàmbalee ko nag ci say bokk ci la woo bokk ya yëgal leen ko am ci ñoo xam ne taxaw nañ taxaw yu day waar wax ko ci wax yu ñaaw ñaaw ba yàlla tontu ko tontu leen ci noonu nag la wéyee di woote bi tasaaroo di yokk nànk-nànk yéefar yi di ko lor waa Màkka ay bokkam di ko lor ak di ko buntu xatal ak xatal euh, muy jànkonteeg loolu moom ña ko gëm te ña ko gëm ñu ci ëppoon ay néew doole lañ ñoo xam ne amuñu ay wéeruwaay lu dul ci yàlla ba mu digal leen ñu gàddaay dem xabasha ñaari yoon euh, waaye moom mu des màkk moom di jànkonteeg coono yeeg jafe-jafe yi waaye amoon na ñoo xam ne daa nañ leen ko wege amoon na ñuñ ko daa wege daa ko ko ragale di ko ko ruse muy baayam Abu Talib nga xam bàyyi taxam la te moo ko yoroon mu dëkkoon ak moom bu nekkoon ak moom ci yooyu jamono ak soxnaam soxna Xadija mi nga xam ne borom daraja la woon te amoon alal ñooñu daan nañ ko jàppale ba tax na yéefar yi lañ daan xalaat ci moom ak di ko ci bëgg daawuñ ko ñemee fesal nam nañ ko bëggee yàlla dogal nag ñoom ñaar ñëpp ñu génnandoo àdduna ci menn at muy Abu Talib ak Sayyidatuna Xadija radiyallahu anha bi loolu amee nag ñoom yëfay daal di jàpp ne kon léegi kat war nañoo mën a am ciw yoon te kenn du dox seen digganteeg moom gëmuñ ne yàlla moom mi ngi fi moom mooy dox seen digganteeg moom euh, mu daal di yëg ak tumuranke gu méttee métti ndax màkk amatu fi bokk yu muy dëgërloo mu ne na dem taif ci kër ay nijaayam ndax mu am fa ndimbal ba mu demee ñooñu yées waa màkka boole ko nit ñi suufee ñaak ñu di ña ci wàllu xel ñu di ko sànni xeer di ko dàq ba mu génn dëkk ba euh, ba mu génnee dëkk ba nag ci ko yàlla ci la sidna jibril ñëw ci moom ne ko mala euh, ci la malaaka mi yor doj yi ñëw ci moom ne ko sunu boroom jox na ma ndigal bu lay soobee rek ma fam ñaar doj yi këpp ko ci waa dëkk bi ñu àl ko ma ne jàpp ko Euh, akuk mën a muñ mu daal di ne nañ bàyyi rek bañ bañ leen alak ndax dañoo xamut li ma leen li ma leen ëmbal ci yiw ak li ma leen di wol lañ xamagul rek mën naa buñ ko xamee dañ taxawee yeneen taxawaay ci la ci xat-xat yu méttee métti yu tara tara tar yëf yi gën a te metti mu mel ni kon suuf si moom bu nu xataal nañ ko fi ba amatu fi fi weeru ci mbindeef foofu nag la ko sunu boroom wooye ca asamaan ya gën a kawe ngir wan ko ay kiimaanam kon ci tolluwaay boobu ci la rañaan mi amee ak yéeg gi mu ñaari ñaari xew-xew xew-xew bu njëkk bi ci kaw suuf sul la amee moom la ñu tuddee rañaan bi ci des amee ci asamaan moom la ñu tuddee yéeg ga mooy al israa wal mi'raaj dinañ koy nettale ci téere siira yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi googu dafa nekk ca jàkkay màkka al masjidul haram fa kaaba ga nekk di forbët di dallu Seydina Jibril fekk ko fa indaale daaba di ñuy wax alburaaq daal ko yee ci nelaw mu yewwu mu ne ko kaay wuy sa boroom mu daldi jàpp daal di ànd moom génn fekk daa baja taxaw ñu bokk ca war ñoom ñaar bañ ca waree mu jóge ci jàkkay màkka daal di dem ba ci dëkk bu ñuy wax Quds ca Palestine am na jàkka ju fa nekk mooy almasjidul aqsa joo xam ne yonent yu njëkk ya Seydina Daawud Suleymaan ñooñu ñoo ko tabaxoon mu nekk jàkka ju sell fa ñoom banu Israil euh, di barab bu sell itam euh, léegi bañ demee ba foofa mu tase faak yonent yi ko jiitu woon ñoom ñëpp ñu bokk fa daje ci kaw suuf mu jiite leen julli kon tukki boobu mu def ci guddi tukki gi mu def ci guddi gi jóge ci Màkka dem Palestine jóge ci jàkka jooju ci màkk dem ci jàkka ja ca Quds loolu la ñu tuddee rañaan rañaan mooy tukkib guddi loolu la alquran di wax subhana allazi asra bi abdihi laylan min almasjid alxarami ila almasjid alaqsa alladi barakna xawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir kon aaya boobu uh, tukki boobu lay nettali mooy mooy mooy rañaan mi danañ ci dellusiwaat ci kanam tuuti incha allah ba mu ba demee ba noppee ca julli ga nag ca la ko ànd ak Seydina Jibril ñu bokk yéeg jaar ci jaww ji dem ba àgg asamaan ba ñu ci asamaan su jëkk si asamaan si ngay jëkk jot boo jógee ci suuf jëm kaw ba ñu yeggee Seydina Jibril fëgg buntub asamaan ñu ne ko mu mu ne man la Jibril dama ànd ak Muhammad alayhim assalaam ñu ne ko ah, dañ ko yónnee ñu mu ne waaw waaw ñooñu daal di bég lool daal di ubbi buntu ba mu daal di saafaanteeg euh, sayidna adam mam fekk foofa ak ñam fa nekkal ñu bég lool ci ñëw gim ñëw jamono ba àgg ci ñu yónni ko te muy xabaar boo xam ne ñoom xamoon nañ ko ñoom yoon ci njëkk yëpp xamoon nañu ne ki gën ci ñoom tey ki yàlla mujj yónni kooku mooy mooy mooy Seydina Muhammad te euh, suñu borom façon te jaam ñoom kóllëre ak seeni ñooñ ci ne fekk jamono nanga ko gëm ñu bég lool ci xabaar boobu daal koy tatagal mu jàll ci asamaan su ñaareel ñu defaat nañ defoon mu yéeg di yéeg ba ci jur asamaan su dem su ne dana fekk ay yonent yu fa nekk yoo xam foofaay seen barzax ba mu àgg ca juróom ñaareel ba asamaan sa mujj fa fekk Seydina Ibrahim mu wéeru ci jàkka yi jàkk ji ñuy tuddee al baytul maamuur jàkka ju sell ju nekk foofa yoo euh, xam ne waxtu wu nekk ay malaaka nangam junniy malaka ñoo fay dugg di julli te ku fa dugg bu ñu duggee ba julli ba génn dootuñ fa delsi te buñ ñu génnee ñeneen duggaat mu daldi di nuyoog moom saafaanteeg moom mu bég ci moom mu jàllaat nag baag fu ñuy wax sidratul muntaha mooy barab bu sell déemuk yamukaay garab la bu ñu tuddee ak déem xëy na daa melokaanu déem bi xam ci àdduna ñu foofu nag mooy yamukaay yamukaayu bindee fi bindee fi yéeg foofu lañ daan yam Seydina Jibril mi mu daan gis muy ñëw ci moom di wàcc wax yu foofaay yamukaayam foofu lay sax du du ko weesu jëm kaw mu gis fa ay kiimaan yu rëy rëy ñu won ko fa lu yéeme loo xam ne alxuraan na ko ne ma zaagal basaru wa ma tawa lam fa gis lim nat li na gis foofu lu wér la bëtam weesuwut maanaam xoolut lu bokkut ak lañ ko doon te ba ko xoolee jéggiwu ko di xoolaat leen lu bokkut ak moom kon lim gis rek lim wax rek mooy lam gis yam ca ba mu àggee foofa fala Seydina Jibril yam moom ñu daal koy indil waruwaay eh, mu yéeg mu yéeg ca daal dem nag ba àgg fa gën a kawe ca fa sopp sunu boroom mu déeyaale ak moom foofa sunu boroom déeyaale moom foofa déeyaale goo xam ne eh, kenn fekkiwu ko ñoom ñaar rek ñoo ko séq mu jox ko fa lam ko fa jox ci ay xam-xam ak mboot mbóot ak i ngeneel joxaale ko fa juróom fukki julli yum farataal ci xeetam bam fa waññi bam waññi ko nag di dellu siwaat bam ñëwee ci asamaan juróom benneel si mu fekkoon Seydina Muusa alayhim assalaam ci la ko laaj bi mu jëlee ci boroomam mu ne ko juróom fukki julli la farataal ci xeetam mu ne ko loolu day bari boo ko yóbbu ci sa duñ ko àttan te buñ ko defut mën naa am lu ca juddoo dellu ñu wàññil la ko mu dellu ñu wàññil ko juróom mu delsi mu waxaat ku ne ko dellul saa yu demee ñu wàññil ko juróom mu delsi ñu ne ko dellul ba mu des juróom ba desee juróom mu ne ko dellul ñu wàññiwaatal la mu ne ko rus na ma dellu foofee la déggee kàddu gu ko wax ne ko juróomi julli yooyu képp ku ko saxoo di ko julli danga am yoolu ku julli juróom fukki julli mu daldi dellu siwaat nag eh, àndaat ak Seydina Jibril ba yegg siwaat màkka gi mu jóge woon kon loolu mooy yéeg gi gis na kiimaan yu bari nag eh, gis na fa gis na fa malaaka yi malaaka yi gis na fi rawat na ñeenti malaaka yi jibril gis na Seydina Jibril ci na ko yàlla binde ak Mika Seydina Mikail Israfil Azrail gis na leen war nañ ko ajjana wan ko sawara wan ko ridwan mi yor ajjana caabi ajjana wan ko malik mi yor caabi sawara wan ko yu baree bari daal ci yi nga xam ne moom lay woo nit ñi doon ko di ko wax xam ne Seydina ji moo ko doon wax mu gëm ko di ko wax nit ñi di ko gëm te tegu ci woon bëtam léegi wan nañ ko ko mu teg ci bëtam gis kiimaani yàlla yi xam kàttanam gën a xam kàttanam daal di ñibbisiwaat siwaat ci yoon wi nag bi ñuy dem ak bi ñuy dikk yépp ci jaww ji mi ngi romb ay nit ñu ñuy mbugal ay xeeti mbugal yu wuute lu mu gis ñu gis ñu nekk bu laajee ñu ne ko Seydina Jibril ne ko ñii ñoo daa def mooy sangam moo tax ñu leen di mbugalee nangam kon ñoo ña nga bar sax kon ñooñu mu doon romb noonu ñu leen di mbugal ci bar sax lañ nekk waaw ba fañ la ci ñoom ñu leen fay mbugal ba mu dellusiwaat nag Euh, loolu lépp ñu ko def nag ci diir bu gàtt gàtt gàtt ci biir guddi gi ci riwaayaat yi dañu naan fa mu tëddoon di nelaw tàngoor wam fa ba fa yaramam bàyyi woon ba muy delsi fekkul mu sedd kon ci ab diir bu gàtt lool lool lool ci la xew-xew bii am lépp ba mat euh, loolu kon mooy ni mu tëdde ci tënk rek bi mu fanaanee ba asamaan set mu toog ci ak kaaba ga ci ëttub kaaba ga yéefar ba ñëw abu jahlin fekk ko fa mu toog mu ne ko sawaay tey loo indi nag ban xabaar nga ma indil tey nag ginnaaw yow bis bu set nga wax lu kii yaa ngi wax lu kenn mënta xam te xel du ko mën a nangu mu ne ko biig day jóge na jóge naa fii ci Makka jëlee nañ ma fii ci Makka yóbbu ma baytul des muy loo xam ne bu ñoom waa Makka bu ñu daan tukki ah, yor seeni jëgg di di di di di jëndi marchandise daañu am weer ci dem am weer ci dellusi gi mu ne moom mu ne ko dem na ci diggante ci ci biir guddi gi dellusiwaat ci mu daal ubbi gémmiñam yéemu lool gëmu ci dara nag waaye ma ngay nekk Seydina Abubakar Siddiq radiyallahu anhu mi nga xam ne moom euh, ku dëggal la koo xam ne lu ko yonti wax rek sallallahu gëm na ko muy yàkkamti mu ñëw ba mu wax ko xabaar bi ndax mu weddi ko ndax jàpp ne loolu moom mënee su koo nangu euh, ba mu dikkee Seydina Abubakar mu ñëwee Abu Jahl ne ko sa waa ji nag tey laaj ko nag la tey de wax na lu yéeme loo xam ne xam naa yaa fi gën a mën a gëm waaye lii moom tey mënoo koo gëm mu ne ko lu mu wax mu ne ko nee na jóge na fii biig ci guddi màkk gi dem ba baytul maqdis mu dellusiwaat mu ne ko moo ko wax mu ne ko waaw mu ne ko su ko waxee dëgg la ndax man maa ngi koy dëggal ci lu gën a rëy loolu damay bokk ak moom benn jataay mu di mu di ma wax ay xabaar yu ci asamaan te demul asamaan moom jëmul ci asamaan te damay wax ay xabaar yu jóge yu xew yu xew ci asamaan ma di ko gam euh, te demul ci asamaan euh, kon su ma waxoon sax ne dem naa ci asamaan danaa ko gëm daal di ci Seydina Muhammad ne ko lu mu doon wa mu nettali ko daal di ko wax ne ko sax asamaan su su ngay sax de dem naa ca far fekk rañaan bi rek la ko njëkk la waxoon Abu Jahlin waaye mu wax Seydina Bakri ne ko moom dem na ne yéeg na yéeg na na Seydina Abubakar daal koy gëm de lu mu ko wax rek mu ne ko dëgg la de daal koy dëggal nga xam ne moom yëf du kiimaan ci moom xas na dëggal yonent bi ne yàllaa ko yónni sallallahu alayhi wa sallam xam na ne du wax lu amul te deesu ko ko du woru seytaane du ko nax te du jeneer lu muy wax du ay jeneer dëgg gu wér lay wax te xas na ko dëggal ci dëggal ba noppi dëggal na ne lu mu wax dëgg la kon mënatuta wax lu muy weddi moo tax da ko gëm gëm gu yomb goo xam ne amu ci benn sikki sàkka wala lu koy yéem dara yéemu ko ci jàpp na ne loolu moom lu lu dëgg la gu war a am goo xam su ko waxee rek am na waaye yéefar yi daal di ñëw bu xabaar bi siiwee ñëw wër ko nag ne bu fekkee nee nga dem nga baytul maqdis ci guddi gi waxal nu mu mel naa Abubakar ne ko man de dem naa fa euh, mu ngi toog yéefar yi taxaw ñoom ñëpp ñu bokk teew di ko laaj nag ne ko ndegam nee nga dem nga fa waxal nu mel waxal nu barab ba nan la mel ci riwaayaat yi wax nañ Seydina Muhammad sallallahu tiit na tiitaange ju rëy foofu ndax yëf yi gaaw na gaawaay boo xam ne seet seetantalut béréb ba na mu tëddee ci ak teqantal te laaj nañ ko ko fi mu nekk nii waaye suñu boroom daal di koy indil ñu indil ko tegal ko barab bi mu jàkkaarloo moom di xool di wax di xool di wax lu mu wax rek sidna bëkk na ko dëgg la de ndax moom dem na fa ña ko fekke ñépp xam ne li mu wax dëgg la ba mu àgg sax wax na leen ne seen seen jëgg bi demoon di jëndi marchandise ñi ngi ñëw ña nga tollu barab sàngam nangam xew na ca ñoom te bañ dikkee lañ wax lam waxoon noonu la amee eh, kon jeexit jimu mu bam defee noonu nag naa Bakir moom jeexitalu ci moom jàppee na ko muy xabaar bu wér boo xam wutalewu ko xabaar ya ko jiitu woon ak ya koy mujj ndax ngëm moom bu xasee dëggu nit bu xasee am yaqin amug woolu ca ka mu gëm dootul sikki sàkka walla muy werante ci lenn lu mu ko wax lu mu ko xas waxati rek da koy dëggal lu mu gisati mu def ko it da koy dëggal foofu la àggoon moom moo tax ñu koy tuddee siddiq waaye ñi nga xam ne nag seenu gëm dafa doyadi yoon ñi seen pas-pas yolomoon ñu ci baree baree baree bare dañoo daal di weddi moom far lañ jotoon a gëm a kës néew ca la leen daan wax bu mu leen waxee lii xabaar bi rëy na ci ñoom ba dañoo far weddi am ñu bari ñu far tubbi génn ci diine moom la Eh, imaam Busayri di wax wa taxadda fartaaba kullu muribin wa yabqa maa suyulil xusaar ne eh, yonent bi dëkk na leen maanaam bam ne leen dem naa fa ñu weddi ko indil na leen ay firnde yu dëggal lam wax waaye ña seen ngëm dëgërutoon ak yéefar yi ñoom dañoo weddi lam wax mu ne nag loolu ñi gëmoon ba noppi te weddiwaat ginnaaw bi loolu du kiimaan ndax pas-pasam dëgërut lu dikk yóbbaale ko moo ko xobayam koo xam amul pas-pas bu dëgër lu lu lu bu rëy xewee rek xew-xew bu rëy bu amee rek mu daldi génn ca lam gëmoon daldi wàcc aw yoon mu ne mii mel ne mbalit bu ab taw bu baree rek ba yool mi bari fu mu fekk mbalit da koy buubaale yóbbu xew-xew bu rëy itam fu mu fekk ku pas-pasam dëgërut da koy daldi weddiloo mbaa mu delloo ko gannaaw euh, kon jeexit jooju moom la bàyyi kon ci ñi nga xam ne ñoom la fekk si mu ñaari xaaj ñu ko dëggal ngir xam nañ ne lu mu wax dëgg la ak ñi nga xam ne dañ ko weddi ngir jàpp ne li wax du lu mën a am kon ñaari taxaw yi la am ci bim dellusee noonu la ko nit ñi euh, gise muy xew-xew boo xam ne nag ay bind yu bare bare bare bari mën nañ ko cee jànge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 أشهد أن محمدا رسول الله أشهد

أكبر bokk na ci bind yiñ ci mën a jànge buñ delloo ci aaya bi koy bi nettali rañaan mi muy aaya bi njëkk ci suratul isra subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa alladi barakna xawla linuriyahu min ayatina innahu huwa samiu albasir bokk na ci bind yi ñu ciy jànge bi ci njëkk mooy dañ ci dégge dañ ciy gën a xame kàttanu sunu boroom akuk baaxam kàttanu sunu boroom ak ngëneelam lu màgg kàttanu kàttanam gi nga xam lu ko soob mën na koo def ak ngëneelam lu rëy li nga xam ne ku ko soob mën na koo jagleel loolu dañ ko dégg ci baatu subhaana ji mu wax nii subhaana allazi asra nga xam foofu tuddul tuddul aw turam waxul ne subhanallah allazi asra waxul ne tudd naa sellu yàlla mi la tudd xam ne bañ tudd aw turam ngir wane ne rañaane gi gi mu def yonent bi sallallahu day tegtale ak sellam ak màggaayam ak kattanam gi nga xam ne yàgg na ci lu ko soob mën na koo def ak ngëneelam li nga xam ne ku ko soob mën na koo jox ci ngëneel lu ko soob baat subhaana bi dana tegtale kàttan googu di tegtale ngëneel lu mag loolu ak coobareem ak ya ci aju yépp ci loo xam ne daf ñuy gën a delloo ci wéetal sunu boroom loolu kon bu ñu xamee ne rañaane gi ak yéeg gi sunu boroom moo ko def ci kàttanam ngir jagleen yonent bi sallallahu alayhi wa la ko soob ci ngëneelam su boobaa euh, ku ku ku jëfandikoo xelam dootul weddi ndax day xam ne yàlla moom jëf ju ñu xas askan ci yàlla rek lu mën a nekk lay doon fekke ne nag nit ki dafa jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo rañaanal boppam moo jógeel boppam màkka dem baytul maqdis jógeel fa boppam yéeg ba ci asamaan bàgg fa gën a kawe bu delloo bu delloo jëf ji ci yonent bi sallallahu alayhi te jàppee yonent bi rek te yonent bi tam mu àtte ko àtteeb nitu kese ku kàttanam yam ci kàttanu nit yi kese yi rek su boobaa du mën a gëm du mën a gëm xabaar bi waaye ku ko delloo ci sunu boroom nag xam ne moo ko def ci kàttanam ak coobareem tam mën na lu ne su boobaa gëm gi day yomb moobu loolu benn la mooy kon ñi doon weddi dañoo delloowut yi fii ci jëmmi yàlla mi ko def ci kàttanam ak coobareem ak ku baaxam dañ koo delloo ci yonent bi te yonent bi sax buñ ko ca delloo itam dañ ko jox àtteeb nitu kese rek te suñ ko joxoon sax suñ ko jàppee woon jaamub yàlla bu kawe daraja bu yàlla def muy ku wuuteeg jaam ñi ku mën a def lu wuuteeg li ñuy def sax war na ko mën a gëm ba tey waaye dañ ko delloo ci yonent ba noppi jàppee yonent muy nituk neen koo xam ne lu nit ñi nit yi nit yi neen yi mënul mënu ko te bari na kuy weddi waaju baax te ci lu mel noonu la koy dal moo ko cay xiir muy benn ñaareel ba mooy euh, kon suñu borom daa askan jëf yi ci boppam asra la wax asra ne moom moo ko def mooy moo jële yonent bi sallallahu alayhi ca Màkka yóbbu ko baytul maqdis jëlewaat ko fa yóbbu ko ca kaw kon jëf yi ci boppam la ko askan foofu itam bi abdihi ji mu wax ci ab jaamam mooy wane ne ki mu defal lii kum fonk la kum teral la kum teg fu mu tegul kenn la ci kawe mu askan ko ci boppam ne ab jaamam la kon jaam bu mu bëgg la jaam bu mu teral la jaam bu mu yëkkati la ba defal ko lu kenn mësta am ci ña ko jiitu woon te kenn dootu ko amaat ci ñi ñëwaat loolu yi dañ ci jànge ne ab jaam itam nag maanaam jëmm mbindeef lu mu rëy rëy ak lu mu kawe kawe ak lu mu yéeme yéeme du weesu doon jaamub yàlla foofu kon mooy fi yonent bi nekk ci daraja ji gën a kawe fi mu amee daraja ji gën a kawe mooy ci keroo rañaan ma te foofee sunu borom ab jaam la ko fa wooyee kon euh, loolu kon dañ ci jàngee ne ab jaam jaamub yàlla mën naa àgg fu ne ci kawe waaye nag teewul jaamu yàlla lay doon yàlla des doon yàlla moom kenn du bokk moom do li mu doon euh, dañ ci déggee itam euh, màggaayu ñaari jàkka yi ñaari jàkka yi jumaay màkk ak joj euh, bay baytul maqdis ci tudd gi mu leen tudd ci aay bi nga xam ne rañaan mi fii la bàyyi ko ci barab bu sell demaat ci beneen barab bu sell kon day wane sellaayu ñaari barab yooyu ba tax xew-xew bi suñu borom bu ko sooboon mu tàmbalee ko fu ne jëm yamale ko fu ne waaye ci ji fii la ko soob mu tàmbalee ko ci barab bu sell yóbbu ko ci barab bu sell boo xam ne tax na it ñaari barab yooyu ak euh, barab ba yonent bi sa sa mujj muy jàkkam ju tedd ja am wàccuwaay yu kawe ci xeeti jàmm yàlla ñu fay def waaye almasjidul aqsa nag moom da caa teg baarak naa xaw la mooy barkeel nañ la ko wër loolu nag bu ko waxee war naa day war a delloo xel xeli jullit yépp ci barab bu sell boobee nga xam ne ay ati ati ati ati nga ni mu nekk ci loxoy e, yahood yi ñu nangoo ko ci jullit yi di ca defub safaan kon loolu war nañ ci bàyyiwaat xel xam ne jullit yi war nañu bàyyiwaat xel ci barab boobu xam li leen war ca la fa xew ñeenteel bi ci toppaat nag mooy suñ borom wax na ne rañaan mi li ko waral mooy yàlla da ko bëggoon wan ay kiimaanam li nuriyahu min ayatina te it loolu la daaneele ca yëgg ne wala xadra e min ayati rabbihil kubra kon da ko bëggoon wan ay kiimaanam yuy xam yu koy xamal kattanam ba mu xam ne lii xew ci kaw suuf da ko soob muy xewe noonu rek waaye bu ko sooboon du demee ni muy demee bu ko sooboon yéefar yi euh, gàllankoor yeeg lor yi ñu koy def yépp du am ndax gis ba mu gisee la la ko yàlla wan gisee na ci kàttanu yàlla goo ko xamal ne ko lii yéefar yi moom duñ dara ci yàlla waaw def leen lu ko soob du dara ci moom loolu kon dana ko gën a dëgëral dana ko gën a dalal dana gën a yokk euh, ak cawartem ci li ko yàlla yónni innahu huwa samiul basir dañ ci dégg ne yàlla mi ngi xam liy xew ci yonent bi li muy dund di ko jànkonte yàlla nga koy dégg di ko gis te bi mu demee ba yëg ne ba xam ne sonn na itam ah mu ngi koy sàkk mi ngi koy wan luy dalal xelam kon loolu day tegtale zuróof maanaam tolluwaay yi nga xam ne ci la yooyu tolloon kon dars du bind yi daal bari nañu lii lenn rek la ci mën naa na ci yeneen i eh, jataay incha allahu taala mën nañ caa gën a jëlebat yeneen i bind kon ñi ngi eh, tënk fi kàddu gi di wax it ne nag ci guddi googu itam ci la sunu borom feeñale Cheikh Mouhamed Fadil di kenn ci njabootu sëriñ bi ci guddi gi yàlla yoonale julli ak dundamit lëkkaloog julli ba yàlla dogal jumaa ju mag ji yàlla yeggale ko ci loxoom te tam jëm ci julli kon ku feeñ ci guddi gi ñu yoonale julli mu yeggale jumaa néegub yàlla bu toll nii ci wàllu julli loolu war na ne kooku Euh, kuy feddali màggaayu julli la ak rëyaayam ñu ngi tank fi kàddu gi di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa